bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi wa kafa wa salawatullahi wa salaamuhu ala abdihi wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa bokki jullit yi ñuy seetaan te dinu déglu ak fu ngeen mën a nekk ci réew yu fasantikoo ginnaaw bu nu santee borom bi subhanahu wa taala julli ca ndawam la abil qasim sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi dellu di yeesal sunu jaayante ci Maulana Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu wa nu ngi fab sunub nuyoo ak sunu ziyaar di ko jottali Cheikh Mouhamadul Muntaxa xalif général di murit di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér ba naal yim naalal Cheikh Ahmadou Bamba mu eggale ko ak sagoom te ànd ko ak nun xam ngeen ne seen ëttub murit ci jataay yi nuy amal ngir di ko waajalee fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di màggaluk Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu dellusiwaat nanu tey fii ci kër Cheikh Abdou Samad Mbacke moom Serigne bu ngir wéy ak yéen jataay yooyu nu ngi sant yàlla nag bu baax di julli ci yonente bi di sant Cheikh Ahmadou bàmba di sant Cheikh Abdou Samad Mbacke mi nga xam ne moo waral jataay bii dajale fi nag ay ndaanaan yoo xam ne kenn ku nekk ci ñoom rek doyoon na mu waxtaane plateau bi waaye moom ci yaatalam ak bëgga a wan ne ñiy liggéeyal sëriñ Touba ci waar wi ñu bëggante lañu ñu soppante lañu te mën nañoo bokk benn plateau moo waral sëñ bi doxalee doxin wu mel noonu ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér euh, bu dee ci sama ndeyjoor maa ngi feggoo ak Serigne Bousra sàmbu mi ñëpp xam ci waxtaane Cheikh Ahmadou Bamba te man ko lool. ci biir réew mi ak ci bitim réew doonatul kenn ku ñuy présenté ci sama càmmooñ maa ngi feggoog alxaaji Gana Messere Maxtaar mi ngeen xam ci waxtaani Cheikh Ahmadou bàmba te jekk ko lool fa tabarakallahu di doon ku engage ku yoon wi ñor ku ñëpp xam ba tey ci sama càmmooñ maa ngi feggoo ak alxaaji Abdoulahi Diop Bisri moom dama koy wax ne ko yow pàggutee fi Sëriñ Tuubaa ga di jàmbaar di ko am éloquence di ko mën a jàngale di ko mën a jàngale Cheikh Ahmadou Bamba kon daanaan yooyu la sëriñ bi dajale tey ci ëttub murit ngir ñu waxtaane nag ay thèmes yu fasantikoo incha allahu bu ñu duggee ci waxtaan wi kenn ku nekk ci ñun ci biir réew mi ak ci bitim réew di topp di ngeen xam fi nu jëm incha allah alhaji Busra maa ngi lay nuyu bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ixwaani axawaati asxaab almaali ayuha almushaahiduuna alkiram asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki téléspectateurs yëpp noo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen ndokkeel ci weeru màgg wi di weeru cheikhul xadim di leen siyaare yéen ñëpp di ci jiital saaxibul fadilati cheikh Mouhamadul Muntaqa mi nga xam ni moom la sëñ Touba dénk yoonam wi di nuyu bokkam yëpp ak rakkam yëpp ak njabootam gépp ak murid saadix yëpp sëñ Ibrahima di la fay ab nuyoo di nuyu sama jarbaat yi ma bokkal plateau bi ñuy ñoo xam ni sawar naa lool ngir daje ak ñoom ndax lii dañ koy sant yàlla bu baax a baax ndax bu neexut woon yàlla jataay bii du mën a am di leen ñaanal bu baax di ñaan ci barke xaadim rasool waxtaan wi nu bëgg a sumb jëme ko ci sëriñ tubaa ngir waajale ko bisam bi yàlla nañ ci jariñu jëriñe ci barke xaadim rasool jërëjëf alhaji Busra nu ngi lay sant yow tim bu baax di la gërëm ci nuyoo bu tedd bu màgg boobu nga nuyoo alhaji Gànne Mesere Maxtaar maa ngi lay nuyu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima cheikh ibrahima ñoo ngi lay delloo nuyoo di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu di nuyu mbooleem ñi nga xam ne ñoo nuy seetaan fu ñu mën a nekk ci biir àdduna bi yépp ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ñaanal cheikh mouhamadul muntaqa sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba naa lii mu naalal lislaam yëpp mu àggale ko ànd ko ak mbooleem njabootu Serigne Touba gi yëpp waaye di beral ab nuyoo Cheikh Abdou Samad nga xam ne tey moom la ñu nekk ci ab ëttam te mu taxawal lu am solo lii ñu di ko ñaanal yàlla sunu borom kàttanal ko te dëgëral ko bu baax te eggale ci yéeneem alhamdulilah di nuyu sunu kilifa gii nu bokkal jataay bi di sëriñ ba Bassirou Samb di ko ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi te wéral ko lool ndax kilifa gu yaatu la gu tabe ci dara darajaam goo xam ne waxtu wu nekk daf nuy soññ ñun ñëpp di nu gën a teg ci yoon bi di nu gën a laaye biire di gën a dalal suñu xel kon yàlla na yàlla gën laa yàggal nuyu sëñ Abdoulahi Diop Bichri yi nga xam ne moom la ñu feggool moom it mu nekk suñu mag nekk ku baax ak sëñ Ibrahima Fallam bi nga xam ne moo yor tey kàddu gi moom it nekk suñu kilifa ñu di ko ziyaara bu baax ak mbooleem mbokk yëpp wasalaamualeykum wa Euh, jërëjëf alxaaji Gana Messere Maxtaar ci kàddu yu rafet yooyu noo ngi lay sant di la gërëm kon noonu la ñuy joxe kàddu gi rek alxaaji Abdoulahi Diop Bichri bismillah auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa nabiyina muhammadin il makin wa ala alihi wa sahabatihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain ayuha al ixwa wal ayuha al ayuha al musaahiduuna nu raxibu bikum wa nusallimu aleykum bi taxiyati ahlil janna wa naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu waaleykum salaam mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki tedd yi ni topp yépp nu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di leen baal di jiital ci kàddu yi sant yàlla sunu boroom julli ci yanant bi alayhi salaatu wasalaam santati seexul xaddim di jaaraamaal maam Cheikh Ibrahima Fall buntu yoon wi di ñaanal sëriñ Muntaqa Bachir mi tooge jataayu seexul xaddim yàlla na yàlla dolli ko wér te dolli ko kartan mu yàgg lool ci sunu kanam di ko ñaanal mbooleem njabootu seexul xaddim bi di nuyu ak a ziyaara sëriñ Abdou Samad Mbacke Souaibou mi taxawal jataay bu am solo bii lépp jëm ci luy dundal xam-xam ak lu ñuy gën a soññ ci wane liggéeyu Cheikhul Khadim bi yàlla yàlla sàmm ko te fay ko nu ngi bég lool ci jataay bi di ziyaara sunu kilifa di kenn ci nun di xutba bu mag ci ñun ñuy waxtaane Serigne Touba yépp di royukaay boo xam ni moo xàll yoon bi ba tey ñun ñëpp ñu ñeme ko te xatalu ci kenn te bari na kuy jariñoo ci moom ay sutur àgg fépp ci waxtaan muy alaaji Busra Samb yal na yàlla sàmm ko lool yàggal ko sunu kanam ba ca kanam a kanam di beral nuyoo alaaji gànna Messere Mokhtar moom it di jàmbaar ci yoon wi di ko bëgg sëriñ Touba jeex ci tàkk nga xam ni cofeel lay waxe ci sëriñ bi képp ku bëgg sëriñ bi saa bu waxee sa xol sedd ci moom nga ñaanal ko yàlla gën a yàgg ci barke sëriñ Touba di beral nuyoo sëriñ Lamp Fall Ibrahima mi nga xam ni moom dañ koo jël ngir modéré jataay bi waaye li ñuy def dàqunu ko ndax xam-xamam bu bari ak géejoom gu bari ci sëriñ waaye jikkoom yu rafet yàlla yàlla sàmm ko te fay ko ñu ngi nuyu kilifa yin fi fekk yëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp xaq di baal ñëpp di am mbégte lool sëñ Ibrahima Fall Lamp di la delloo kàddu gi incha allah ba ci kanam. jërëjëf Alhaji Abdoulaye Diop Bichri mbokk yi ñuy seetaan ci réew mi ak bitim réew nu ngi bëgg a waxtaanee génn góor borom karbat yi nawet yi waral marakiisu noor yi. bàyyu basag baara magi cer cernoog ma sàmba sëriñub Cheikh Ibrahima Fall ki def ñett yu jafe dem ci géej gi ñibbisi dem gànnaar ñibbisi dem jolof ñibbisi raamloo doomi soxna yi soppi ceddo yi ay sëriñ kooku la ñuy bëgg a waxtaane nga xam ne lu baax lu nekk jël na la ca gën lépp luñ na lu baax la sëñ tubaa def na ko wax na ko bind na ko alxaji gànn meseer nee na ngoor na yàlla ngor yonent bi ngor alxuraan sëriñ boobu nga xam ne kenn du moom te du kenn moom lañ bëgg a waxtaani insha allahu rabbi kon sunu laaj bu njëkk ñu ngi ñëw ci alxaaji Gana Messere Maxtaar ku ne xam ne Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu dafa amoon pas-pas am ak dogu ci nekkug juróom ci Mbàkke Kajoor nga xam ne ku nekk xam ne ne daari Sëriñ moor Anta Sali université la woon ci jooja jamono ndax moom ay étudiant la yoroon ndax moom professeur la waaye amutoon ay élèves fu ne ci réew mi mboolem turux yi ak doomi soxna yi daan fa daan takk di fa jànge ji sëriñ bi nekk ak waajuram woowu diir bu gàtt wane fa ak njàmbaar bind ay téere ci jamonoom ba ay waajuram di ko jàngale kon sëñ Gana da ñuy tàmbaleel Mbàkke Kajoor wàcc ak ñun ñëw Mbàkke babal jóge fa ñëw Daaru Salaam jóge fa ñëw Tuubaa jóge fa dem Mbàkke yi ba ni sëñ bi waajee nattu bi ngir dem ci géej gi ci tënk bu gaaw foofi romb nga bëbëstal ko ngir xam nañ xajut ci guddi te xam nañ ñan daanaan la bismillah euh, jërëjëf Cheikh Ibrahim jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan euh, muy tomb bu am solo ñuy fàttali ak nafaraat lenn ci jaar-jaari sëriñ bi mi nga xam ne waxtaane ko ak fàttaliku ko mooy yërmande yàlla mooy xéewalam it euh, étape boobu nu war a tàmbalee it di Mbàkke Kajoor dafa bokk ci béréb yi nga xam ne woy juróom Sëriñ Mbàkke Mor Anta moo ko sanc ku ne xam na ne way juróom di Sëriñ Mbàkke Moor dafa nekkoon aalim nekk aabid waaye nekk it bu di xawsu nekkoon koo xam ne boroom xam-xam yi seere nañ ne géeju xam-xam la goo xam ne daf daan ball wat gune way mar yi ñëw di ca naan si loolu nag euh, kenn ci boroom xam-xam yi bi muy tagg Sëriñ Tuuba da ko ca indiwaale moo tax ma wax loolu Euh, muy ku wax sëriñ ma Kan Dingiraay dañuy wax ne bokk na ci ñu jëkk a tagg sëriñ bi bi muy tagg sëñ bi booba sëñ bi ci fukki at ak nangam lay topp toll boobu mi ngi ànd ak way juróom sëriñ Mbàkke moo ranta sëriñ waaye ba mu ko gisee rek dane ko kii daal moom mboolem siècle yi war a ñëw yépp no si jaam ñépp mu ngi ci ñaari téngam daal kooku nag mooy Ahmadou bàmba mi nga xam ne baayam mooy géej goo xam ne day baawal ñëpp cay naan defe naa ma nga waxoon ne innal xuruuna bila thunya azimmatihim fi raxatayka li yanqaadu ma an qaadu hada la bamba kaana walidahu bahrul ulumi namiril maai mawruda kon loolu tegtale na baayam melowoowu maam ba mu jógee moom Sëriñ Mbàkke Moor Saalum ca woote boobee Maba Jaxu woote woon te ba mabba shahite mu ànd ak Lat Joor ngir atteel ko waaye xam nga ne dafa bokkoon ci lim sartante ak Lat Joor mooy lu bokk ak moom benn pays lu bokk ak moom benn dëkk loola waral bañ fa jógee mu ñëw kër Amadou Yàlla moom mu dem sañ ci paataar nga xam ne bu talaata jotee mu ñëw di ko attesil li jëm ci biirum diine yeeg tooñ yeeg ya ca aju bés yi ca dellu desaat nag mu delluwaat ca daaraam di jàngale ak di yare bi Lat Joor jógee foofa nag ñëw sugeer moom it mu sañ ci Mbàkke Kajoor Mbàkke Kajoor nag diir bu gàtt la fa def ndax ñaari at rek lay war a toll suñ boroom dogal mu wàcc ab liggéey waaye diir ba mu fa nekk yépp it sëriñ bi moom dafay taxaw ci wetam ni ko Cheikh ba Bachir Mbacké wax ne diiru fanweeri at yi Serigne nekk ci ron way juróom yépp du taxaw du taxawal dara lu may ne ci ron way juróom rek waxtu wu ne muy sàkku di bind ay kaamil di ko wecciku léegi léegi la ca bàyyikoo mu di ko def ci yitteem wala mu di ko def ci yitteey sëñ Mbacké moo na tësali ba teel a dajale ngërëmam yi yépp ba ba ñu demee ba ca dëkk boobee mu sanc fa nag di. Euh, Mbakke Kajoor ba ñu demee ci atum sësin di mille trois cent ci gàddaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci weeru muharram woy juróom génn àdduna sëñ Mbakke Moor fekk booba daara ji fes na del nit ñi bàyyi koo nañ ci fànn gu nekk sëñ bi biit wooteegut ci nekk way juróom waaye am na ñooñ booba ñu ngi jaayanteeg sëñ bi te booba way juróom a ngi fi bari na ci mag ñi ñoo xam ne ba ñu ñëwee ca daara ja di jàng si bu ñu gisee sëñ beeg ni mel rek dañoo jël seen bopp ko ko jox loola moo tax bi way juróom génnee àdduna mu ñu indi ko deqale denc ko ba ñu noppee ca denc ba it dafa delluwaat Mbàkke Kajoor waaye diggante boobu it sëñ bi wane na fi wax na fi jëmuwaayam leeral ko àdduna ndax xam nga ne sëñ Ahmadou Ndoumé Mar Syll mi nga xam ne moo doon taxawee sëriñ Mbakke Morante Sali di ko jullee ba ñu dencee ba noppi nag ba ñu dajalewaat mbooloo ma yépp dafa laaj sëñ bi ne ana Ahmadou Bamba sëriñ bi wuyu mu ne bisimilah jegesil sëñ bi ñëw ba sës ci mbooloo mi taxaw ngir ay tegginam bañ a xuus ci biir mbooloo mi mu ne ko noo ngi lay jaal sa way jur wi waaye di sàkku ci yow nag nu dem ci buur bi fi nekk jaal ko sa way jur wi ndax dendandoom la woon léppam la boo ko defee sax mu mën laa teg fa mu ko tegoon nga féete ko fam fa ko sa wayjur féete woon bu ko defee mu féete la fa nga xam ne it fa la féete woon sa wayjur daan ko te loolu nag gisuma ci lu mooy aw yiw sëñ bi ne ko noo ngi leen di sant ndax mbirum jaal mi moom sunna la waaye nag dox jëm ci benn buur jomm naa ko malaaka yi di ko seele moom foofee nag ba sëñ bi waxee loolu te toll ci fanweeri at mbooloo ma dafa xajale ko ci ñaari kuréel ñenn ñi dañ ne kii moom yàgg nañ leen wax ne xel mi gàtt maanaam dafa dafa dafa dafa dafa wéradi ndax bokkul ak nit ñi ay gisin lu jiitu loolu waaw bi muy ñëw dafa doxi Mbàkke Kajoor dox dellu waaw nangu ta ci dara waaw xam ne ñaari kuréel la kuréel bii day wane ne kii xel mi dafa gàtt sa fii la ñii ñoom it jàpp ne kat pouvoir yu rëy yii ak ndombal tànk lu toll nii kuñ ko proposé defe naa waruloo am genn bëgg lu may daw jëm ci loola waaye sekk sëñ bi moom bokkul ak foofu aw jëmin ñu ci nekk it ke kuréel bu ci nekk it sëñ bi tontu na la boppam euh, bi ci jëkk bañ ne ko demal ci wuur yi loo fay jëlee ay kado ay payoor yoo xam dana la soutenir dana baax ci yow daf ko waxal boppam xaalu li yarkan li abwaabi salaatayni taxus jawaisa tuxni kulla ma xiini fa qultu xasbi rabbi waktafaytu bi walastu raadiya xayra alalmi wa diin ñi ngi naan ma jàngal jëm ci wuur yi taxus jawaisa da nga am ay payoor yoo xam ne tuux nii ko la maaxii ni waxtu wu ne dana la woomaral soutenir la ma ne leen man nag man nag ma ne leen fa xultu ma ne leen xasbi rabbi yàlla doy na ma waaye yàlla dana la doo ko doyloo waaye man wa waktafaytu bihi te doyloo naa ko ñu ne waaw bu la yàlla doyloo nga doyloo ko nag kon foo jëm mu ne walastu raadiya xayral almi waji ak lu mu yàgg-yàgg kenn mënumaa jëmloo fenn man genn bëgg laa am muy xam-xam ak diine loolu nag lam ca tontuwaate cay gën a yéeme mooy wala su arju wala axsha siwa maliki li annahu jàlla yugnii nii wa yunji nii foofu la tawxid yem man day du ma yaakaar baa may ragal ku dul yàlla ngir bu ma ñàkkee yàlla may woomalal bu ma nekkee ci njàqare moo may muccal bu ma may yitte moo ma koy fajal te yéen sax lii ngeen may proposé ku ne naan ma jëmal ci buuri adduna yi waaye bëgg xiit bëgg dara nu may yóbbee ci ma dem ci ëtti ña nga xam ne seen ëtti ëtti seytaan la fa kayfa yabaaduni xubal xutaami ila jiwaari man duuruhum rawlu shayatin ñu jàppee ne loolu ayib la ci moom ba tey it mu tontu in kaana aybiya zuhdun fi xutaamihimu fa daaka aybun nafisun laysa yuxzini bu dee wan gi ma leen woon ginnaaw dëddu leen de mooy sama ayib ah loolu ayib ju gànjare la ayib ju foor la jàqaloowuma tiitloowuma ñàkk gi àdduna de awma ci benn gàcc ñeena xel mu gàtt mi lay it mu tontu leen qaalu safihum li kaw nii lam axaf ahada wa ma rajawtu siwa rahmani bi qadar qaalu safihun li tafwidi ila maliki amri an il kawni fi safin wa fi kadar nee nan samam xel daa gàtt ndax ñàkk gee yaakaar war a ragal ku yàlla wala jublu keneen ku dul borom bi subhanahu wa taala yàlla rek laa jublu yàlla rek laa am yitte ci yàlla laa soxla nan laay jëlee sama mbir nag man Ahmadou Bamba fekk ñi nga xam ne ñi miskin lotte ci seen mbir lañ lotte ci mbir may jël saa mbir di leen wóoru di ko wekk ane u fawidu ahwaali li man ajazu an xaali anfusihim ajisal masakini in kuntu daa xasanin aw kuntu daa watarin daawatu zal ayna qabla ra'i wa shini bu ma jàqee baa ma tiit daal borom araslaay woote mooy borom bi subhanahu wa taala te mooy al muayin mi nga xam ne mooy aji dimbala kon bi nga xam ne lu ko soob mu am lu mu bëgg mu am mu am lu mu bëggul du am kenn mënu ko amal loolu bi mu amee Cheikh Ibrahim sëñ bi toogaat na ab diir nekk ca daara ja di lijjanti waaye jógewaat na fa nag defaat tuuram boobu nga xam ne dem na fi gànnaar dem fi ci bërëb yu baree baree baree bari seet fa ay nit ñu baree bari yoonu gànnaar gànnaaru jëkk woowee loole bokk na ci ba mu dellu siwaatee nag nga xam ne lu tollook at ak ay weer ginnaaw wéyum ja juróom sëñ Mbàkke Mor Anta Sali la jot ndigal lu bàyyi ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam jóge ci boroomam ñëw ci moom mu tuxoo ci xaalu tadris nag ñëw ci xaalu tarqiya loolu moo war a rabbi asxaabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat faqat ayyanaka allah mujaddidan li hadal ji lu tax bul yem ci kese kat yow yàlla daf laa tànn def la ngay mujaddid bi nga xam ne yaa war a yeesal diine ji kon nag wa rabbi kullu waxidin bi ma yaliqu bi kenn ku ne la yàlla ca moom ca yar ak tërbiya na ko def gis nga façon yu tërbiya yu wute yii sëñ bi doon di tombal ñii di rootloo ñii di taxanloo ñii loolu li koy indi mooy kenn ku ne la yàlla ca moom ci tërbiya na nga ko ko defal ndax ku ne xam na lan mooy dimension xam na degereem xam na ruuxam xam na lan mooy tabiyaam ba mën laa seet ci yoon moom lay sóob ba ñu demee ba ca weeru koor wa ci asas di 1301 wala doon sori 1883 wala 82 mu xëy woote Cheikh Mahmoud Lamine Diop Adaka di nee na dafa dajale mbooleem mag ñépp fere yi te jàng andi woon leen mu ne leen nag képp koo xam ne jàng rek moo nekk yitteem mën naa ñëw dem nag seeti keneen ku ko jàngal wéyal am njàngam topp aliwaam waaye wa man araada ma araad na fal yasir bi sayri na koo xam ne nag lii ma bëgg la bëgg ah na ñëw nag doxe niñ doxe waaye na jël mbiram bàyyeenu te la mu jub daga nee na bi sëñ bi waxee loolu da caa boole ko doggu dafa dem wax ko rek dem fatu nee na mbooloo maa fa des nag di waxtaan ñii di tànn ak des toog fi moom ñii di tànn dem ñii di tànn te seeni xarit ngir bañ ñu dem mhm. nee na ba mujj nag fa dahabal jull wa baqiyal xull mhm. nee na mujj la ëpp dem nag la néew des waaye taxul sëñ bi nee na gëstu ca loola ndax ajjumaam joojee ba mu ko wootee ñetti nit rek a jëkk a jaayante Cheikh Adama Gueye Cheikh Ibrahima Sarr Ndiagne Cheikh Massamba Diop Sarr noonu mag ñi toftaloo di jaayante ñëw kenn ku ne àla sama wa temps ñëw jox ko sa bopp ci ne ko loo nekk ca laa nekk loo wax ca laa ca laa mu tàmbali taxawal nag yoonu murit ci ndigal lu bàyyi ko ci yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw ci moom ba muy wootee it mu wax ne wóotewul moom lu mooy yàlla mm-hmm. ndax njàccaar wala silmaxa bu bëggee dox ci aw yoon fala budda mu am nag njàccaar ju koy wamnu joxob tumam bi borom bi subhaanahu wa taala di wax ne yaa ayu alladina amanu ittaqu llaha wabtaxu ilayhi alwasilata wa jahidu fi sabili ñenn ca tekkikat ya dañuy wax ne bañ bëggee dàq dañuy wax ne euh, na ngeen xam ne wasila googu nag amalu salihat waaye bañ ne wattabi sabila man anaba ilayya hmm. mooy ñi ne bërit jëm si man topp ma na ngeen ma wut xaw nañoo am tuuti nangam nangam ndax ma leen sutee egg ci yàlla te amoo wasiila moo tax mu woote ci yàlla moo tax Cheikh Ibrahima Jóob almashal wax ne fa ma min muridin yabtaxi l wasla duunahu si waa siaman ma in lahu dahra qaaidu nee na amul ku bëgg egg ci yàlla wan ginnaaw sëñ Tuubaa lu dul gumba goomul njàccaar bi ko wombat waaye sëñ bi bi muy woote néewut ne ñëw leen topp ma waxul ne ñëw leen jox ma dane ku bëgg li ma bëgg jëman dem yàlla laa leen di joxañ daa ilallaahi jallafal mujibi lahu riban wa naajin wa muhtadin ilallaahi xanaa kay ñoom ña ko toppoon bàyyi seen xam-xam bàyyi seen juddu bàyyi seen lépp topp ko lañu wax a gën a wér sëriñ Mansour Diaw mii moo ne sëriñ Tuubaa yàlla kese la woote moo tax muridullaahi ku nam yàlla ñëwoon dem mu ne ku ko wusi nag ci woote boobee mu woote nag yàlla defal la ca ngërëm defal la ca mucc defal la ca jub jërëjëf sëriñ Gana képp ku ko wuy si ci woote boobu mu woote yàlla defal la ci ngërëm defal la ci njub defal la ci sa xemem teefu adduna ak àllaaxira tegal sa baaraam foofu maa ngi dell si ci yow waaye dafa mel ne dama dégg ci sa biir wax nga mel ne sëriñ bi ci sasin muy mille trois cent ci la Mamoor Anta li génn adduna te sëñ bi ku nekk xam na ne ama saraa la gane adduna xat wulida al qadimu man xat saraa sariatul muxtaari ama saraa ama saraa mooy mille deux cent soixante-dix mille deux cent soixante dix boo ko moyee ci mille trois cent trente ans képp lay des xoolal googu dogu kon Serigne Touba bi muy taxawal yoon wi ci yéen ndaw ñi li ngeen ci war a jànge mooy fan weeri at la am bi Mamadou Sy li génne adduna sëñ Gana nee na dem na gànnaar dem gànnaaram gu njëkk googu waaye les certains auteurs dañoo wax ne dafa jàngi woon arab booba waaye déglul sëñ Basiru nee na laata muy dem bind na ma Mawaahibul Quddus waaye ci Ummul Barahin reprendre ko ba way juram di ko jàngale ci daara ji sëriñ Mor Anta Sali jàngal ko sëñ Cheikh Coro ak sëriñ sëriñ Afia Maam Mor Anta jàngalal na leen boppam ma Mawaahibul Xudus mu reprendre maanaam téere bi ñu tuddee al Aljawharu Nafis nga xam ne al Axdari yu la ci way te booba jamono la ko la ko reprendre reprendre Bidaayatul Hidaaya bu imaam Xazali tuddee ko mu lay nu sudóor kon sëñ Tuubaa ba muy dem gànnaar leneen la fa wuti woon lu dul am njàng waaye ci dogoom gu mag googu rek da ngay gis ne. bi sëñ Mor Anta li génne àdduna ñu di ko yóbbu déqali di ko denc daf ne moom day dox day dox dox dem dox dellu si kon sëñ Gana tegal sa loxo foofu ma ñëw ci Serigne Boussra Samb ñëwal ma ci la mille le 10 août 1895 bi Serigne bi takkaloo fasam woowu génn nag war a dajeeg noonam yi jeewal te bis boobu di bis bu tiis boo xam ne maa waral màggal gi ñu jub si Serigne Boussra Samb. Euh, jërëjëf sëriñ Omar ah maa ngi lay woowee turu sa waajur xamoon naa sa baay sëñ Omar Fall ca kaw la xam ak sëñ Maxtaar sama ak noo maase xam nga kàddu ak euh, kàttan ak barke ci baay lañ koy jëlee. barke la xamoon naa sa waajur bu baax moo tax sama xol sedd bu baax. sëñ Gana jërëjëf maa ngi lay ndokkeel ci waxtaan wu rafet bii nga def. yàlla seere na ak sëñ Tuubaa ni di leen déglu ngeen di wax fii mu ne moom a dàqal <laughs> di waxtaan ndax macha allah waxtaan wi rafet na lool te wér lool te lépp tegu ci na mu demee rek ndax sëriñ tubaa moom lépp fépp fu mas a jaar rek tërjëma nañ ko bind nañ ko muy nii nga ko nettalee def nga parcours bu rafet ci diggante ama charan ba mu feeñee ba bi mu wootee bi mu wootee itam nag noonu nga ko waxe ña ko topp topp ko jamono daldi di salfaañoo aslëf ndax ña ko topp sëriñ bi di leen yar ci baabu tarbiya ci bunt bi tarbiya ñu nangul ko jaayanteeg moom ñu gënal ko léppam bu tuflee ñu far bu nàccee ñu naan lu mu yàbbi ju sax ku ko mas a gis bu sa bët dalee ci boom ci jëmmam bis boobee nga ko gisee ba keroog ba ngay génn àdduna foo taxawati day mel ni jëmmam a taxaw ci sa kanam ku ko mas a gis moom sañ Tuubaa bis ba nga ko gisee mooy bis bi gën a texe ci sa dund ku ko gis fàtte sa lépp fàtte ñëpp ñu topp ko muy dox jëm ci boroomam ñuy dox doxin wu sell jëm ci moom àdduna bépp teg ko bët nag mu won gannaaw lépp daldi toxoo mbàkke kajoor googu nga wax ñëw mbàkke bawol gi nga xam ne mooy ardul wilaadaam fi la jëkk a gise jaww ji ci zaahir fekk muy dëkk boo xam ne bi dëkkub maamam la mu bokk ko ki bokkam Mbàkke def njaxasum nit waaye li ci ëpp lépp kon jolof di ay sëti maamam sëñ bi ca kersa ga ak teggin ya ak ñàkk a yàkkamti àddunaam tax nekkuk Mbàkke googee ak mag ñi àndoon ak moom rawatina Seex Ibra Faal Baabul Muridiina daal di révolutionné doxin wi nag ndax nangootul ku maslaa ci sëñ bi nangootul sëñ bi maslaa boppam nangootul ko ko jox benn loxo nangootul ko ne naa mbaala béyka ko sukk fi kanamu sëñ bi tàllal sa tànk wala nga jox ko benn loxo loo ci def rek mu jubbanti la te sëñ bi xam na ni Ibra Seex Ibra mi itam lii muy def yoonu boppam la ndax ba muy door a dem Mbàkke Kajoor waajuram di tool a door a dem léeg-léeg nit jëfandikoo noo xam ne nii bu kenn bëggee jàjj ci mag ñi day wax bàyyil defal ni yàlla mën a faj te bàyyi ndax kii faj lee mu ñëw kon kooku xamoon na ni Seex Ibra Faal dana ñëw bi Seex Ibra dikkee foofu Sëñ Tuubaa metti na ci njëlbéenu Mbàkke sëñ bi sañ ci Daaru Salaam foofee xad ishtihaari na fi lool nag di ko dégg ñii xam-xam bi la dégg ñii wilaayatu gi lañuy dégg ñii jegg gi ci yàlla la ñuy dégg ñii dëddu adduna gi la dégg kenn ku ne ak li la li ngay kumpawu si ci moom li mu sañcee daaru salaam sax fa ab diir génnati fa sañc leewam bii di Touba nga xam ni am na particularité ci suufus adduna si moom Touba ndax dëkk ngi boo xam ne bii Serigne Touba nee na yàlla def na moo gënal yàlla ak rasulullahi ci kaw suuf wachal ilaahi wa wal tajalu ya rabbi ahaba maskani fii ardina lakk walil maahisani dëkk gi boo xam ne bi yàlla lañ fi jëkk a jaamu yàlla rek lañ fi mas a jaamu kenn ku yàlla mosu koo moom monsieur su su jot ci xërëm monsieur su fee tuural deret ku yàlla loolu it feeñ ne ba dëgg ni sii ci foo mën a dugge dëkk bi di dox ba bëgg koy génn da gis war ma ju yàlla wormaal dëkk bii ci doo teg sa bët mukk ci kuy xotti may diine di ŋàbbu poon ci loxoom di dem mbaa ku def yaramu neen di dem danga xam dal dëkk bi yàlla moom marke na ko moom moo tax sëñ bi wax ni wacc alhu yaa rabbi ahaba maskani fii ardina lakka walin maahisat yi bi mu ñëwee ci dëkk bii juróom-ñaari at la fi am juróom-ñaari at yooyu ci la ñeent fukki atam mate ci la giseeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fii jaayanteeg moom tukkeem bii mu yen bu diis bu metti ñu wan ko ca liñ ko ca wan dig ko ca lañ ko ca dig mu nangu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yebbi na ko ci yebbi muta ni ko ndax dama laa bëgg ngir yaari yëf yaa ma sa doon yegsi ci wirasatu nabi wirasatan kaamilatan sirran wa alaniyatan te amagoo ñeent fukki at yaa ëpp loo ma tagg ci mboolem ku ma sa taxaw ci kaw suuf kon nag li yàlla waxoon Moussa laay wax fa xusma aatitu ko wan kunna shak wa kunna li shakirin sëñ Tuubaa ne rasulullahi dimbali ma te bu ma yërëm moo tax képp koo bëggal ndam da koy dimbali waaye doo ko yërëm mu ne ko dimbali ma rek te bu ma yërëm luñ ma teg lu mu diis diis diis su fi fekkee ruu gi nga xam ne moom ma ko yàllaa ko moom warlu naa jom du ko attan ak ngor gu ko attan ak gëm gu ko àttan ci la jaayanteeg boromam yoonu géej gi tukkeem bii dal di génn tuubaa ca kori woowee loolu aw koor la a bay sa Chine ñu wari mu sañ mu dem dëkk bii ñuy wax Mbacke Bari Mbacke Bari soriwul mu ngi fii ci Jolof alxaaji Mouhamadul Fadil Mbacke bi jumaa jumaa jeegee bi muy bi ñuy programme tëli bi nga xam ne moo war a jóge Touba dem Jolof dem Linguère moo sakku tëli bi jaar biir Mbàkke Baari moo tax mu romb ko moo jaarale tëli bi jël jolof ci barabu maam maaram bi moo ko robbale Mbàkke Baari Mbàkke Baari googu maamam du ñu wax Ahmadou Soxna moo ko féete woon doon doomi maam maaram sëñ delluwaat ca dëkk boobee di Mbàkke Baari bi muy dem dafa namoon ne bu ko ko fenn fekk waaye lu ne lu mësa a digle def ko ba mu des ma fi kenn fekk lu mësa a digle def nañ ko ba mu des barab sàngam bu ba fa kenn fekk bi mu demee Mbàkke Baari aw kori la fa dem aw diggi aw tëbaski aw tamxarit aw diggi muy weer wi nga xam ne tey la benn panam sëriñ tubaa nee na li ma xamal ni sama ñaan nangu na mooy iblis ràbb ñaari njabar genn gi mu sànni ko ci xolub sëriñ su xañaan si ak tubaab yi ñu fiire ma ak àdduna genn njabar gi mu sànni ko ci xolub doomi soxna yi yére bu gàtt ne na sama kër gi fees dell ki bataaxal tubaab bi naan ma yaay bëgg def nangam yaay def nangam yaa ngi fexe nangam te xam nga ni léegi iza aradallahu amran hayya lahu asbaaban yàlla su namee mbir mooy manigancé ay sabab sëñ bi ci ni mu doxee ak trajet bi mu jël ak itinéraire bi mu jël ak moom ki mu doon faaw nag def na ay inquiétude ay njàqare ci xoli tubaab yi ndax bi nga xamante ni bii Kajoor tas na damel yi jeex nañu en 1886 barag ci wàllu daanu nañu buur yëpp daanu nañu nga xam ne Sénégal léegi doon na protectorat duggaat na ci loxol France ñu doon ba ñëpp sëñ Tuubaa euh, teewee na ci kanamam tubaab yi noot leen rey leen ña nga xam ne ñooy famille famille aristocrate yi nga xam ne ñooy doomi buur yi ak lawax yi ña ci bari dañoo daw réfugié wu ci ginnaaw sëñ Tuubaa moo tax Tuubaa gii doomi soxna joo fi way askanal ko ci kajoor mbaa jolof mbaa njàmbur ñu ñu di gor seen maam ya doon bañ démb ndax yi ceddo yooyu yëpp dañoo daal di daw dugg si nag ci yoonu murit loolu tubaab bi xam na ko ba noppitam itam gi gii sanc gi nga xam ne la création de cette ville de Touba aspect bi mu yor géographiquement loolu dolli na inquiétude dolli na njàqare tubaab yi ndax Touba aw nat la nekk ab réew moo xam ne surface limitrophe la jigéewul bopp gaar jigéewul bopp dex climat bi hostile na waaye nag mu jige réew yépp nag mu jige jolof jige njaambur jige kajoor jige jige nga xam ne suuf la soo xam ne si stratégie de guerre la la nuuru tubaab yi nga xam ne bu sëñ Tuubaa takkoon bu xare réew yéppay màbbandoo loolu tubaab yi remarqué na questionné nañ ko ci Tuubaa avancé gi mu ba dugg jolof nag te booba jolof itam desee mokk loolu gën a tee dolli njàqare tubaab yi tubaab yi nag di ko bind nag ànd ak mu fàtti soona yi ak rej yi ak rambaaj yi waaye booba di sëñ Tuubaa wax rek moo wér muy sababu xaybati anna laaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna xaadiman fi daw mi wa an akuna li xaw mi yàlla daal di indi ay sabab yoo xam ne lu ci nekk nag dafa nuru lu tubaab yi ma a teg seen loxo ci ndàngam lay fexe ndàngam lay fexe ànd ak it sëñ Tuubaa ci boppam du miim xam nga miim miim jàmbaar du miim ndax ñetti juge rekk am ñetti àttekat rekk am yàlla dina àtte yàgg dana àtte temps dana àtte ndax wala fi ne bu njaab yàggee rek nga war feeñ waaye xaatir dana àtte kenn ku ne mën ngaa àtte sa bopp ndax bu ne nangam ji yéen ñan ti ko sàcc ki ko sàcc xam na ko ki ko sàccul xam na ko sëñ Tuubaa moo tax du miim tuuma yooyu yëpp mu wéeg moom ba bi ko suñ borom digalee ni ko di ko tontul bindal benn bataaxal képp wax li fi yow te jox leen ko teggil sa tuuma ci la sëñ Tuubaa bind lettre am boobu mémorable boobu nga xam ni ci loxol boppam la wax ni moo ko bind jox ko borom daaru mu yóbbu ko ndar waaye fekk na xat xudiyel amru fi saabiqa ilmi tabaraka wa taala moom xamoon na ni dana dem ci géej gi dana tukki liggéey li boromam ca bisub ñeenti fan ci weeru safara wa ca bay bëgg a dem suñ borom ni ko toogal ba ñu digal la ko mu toogaat amaat fa daanaka ñaari ay bis ba ca bu bisu fukk ba ak juróom-ñaar di ajjuma di juróom-ñeenti fan ci weeru août 1895 ca tàkkusaan sëriñ Tuubaa nee na ci la gis rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko tatanaa wërale la te ma tata ji bunt luy tàkk ba juble dina fay dara du la mën a dara wa jaala al muxtaaru sallallahu alayhi fi al aali wa man loxoo xijaaban maa ne xam ne dara su ma loxum si xaala laa tax sa xarar sëriñ tubaa nee na ku yàlla téel sa cumikaay sa gannaaw du laal suuf guddi googee sëriñ tubaa dafa fanaanee wer ak ceek boo demee mbàkke yi gis néeg ba nga xam ne moom lañ fa takk gis xas bu naa laahu gi nga xam ne moom la sëriñ tubaa taalif keroog muy guddi wax set mu waaj ba jekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ko ni boo xëyee boo jullee fajar ba bu dellu si kër sëñ tubaa waaj waajtaay woo xam ni lan na rek la ko ci yàlla fayee muy waajtaay wutal ni wii murid yi waaje bisam bi xam nga ni bu fekkente ni li wolof yi wax dëgg la ñu bis bu ne dimension borom lay yor barke sëñ tubaa 18 safar kenn mënu koo jox àqam su fekkee bis borom lay tollool bis bii ci suñu kanam kenn jox ko àqam kenn mënu ko nit nag bu bu jeexee ci mbir rek wàcc na bu ca dee wàcc na bu ca jeexee wàcc na waaye kenn jox ko ak xam ndax sëñ Tuubaa bi mu dem ci géej gi dàll weñ la tëggalu woon te dégg ku tëggalu dàll weñ moo gën a yomb gis ko ko def te moom la defoon moom dàll weñ la tëggalu woon bi mu dem ci géej xëy gaawu di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di fukk ci mois de août moo tax datu bis août boobu ëpp nay fàttali fàtte ndax moom la tubaab yi xam tubaab xamul Chaabaan xamul Ramadan xamul Shawal xamul su tubaab xamul gàmmu xamul rakki gàmmu tubaab janvier la xam février la am xam mars la xam yooyu la ñu xam moo tax bis bii fi sëñ tubaab jóge woon noo xam 18 safar waaye 10 août gi nañ ko ci boole ba xam ne tubaab yooyu mooy la plus sanglante défaite bi leen sëñ tubaab jëkk affligé ci kaw suuf fukki fan ci weeru août bisub gaawu sëñ tubaab julli fajar ba noppi ci kër gi bi mu demee bay bëgg ci kër gi lam xelam dem ci lim jaanteeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu taxaw ci diggante jàkka ji ak buntu kër gi ne na sama bagage yëpp fekk ci kër gi fekk ci bi mi ngi sol ay xaftaan yu sutaate ak i jàllaabi jël ay jàllaabi su neex noonu Cheikh Saalihu Mbakke daan soroo sol ay yére yu sutaate ay xaftaan ak i jàllaabi jël ay kaala laxas ko ca ndiggam la ba ca dënnam ba lépp mu yeew ko ay kaala muuru ba tuut difee ci xar kanam bi bu xoolee moom Sëñ Tuubaa nga defeen kanam jëpp kawar la bu gëmmee nga defeen xoolee nga defeen kanam jëpp ay bët la bu gëmmee nga defeen xaram jëpp kawar la mu ne ci alxuraan sori lool ñu indi gaalam ya ak maxtume ya gaal yi itam yomb naa xàmmee ndax mboolem gaal gu demoon ci géej gi wenn njàpp rek la am ci digg bi ñu takkal ko fas ñax wéru wét muy fas ñax awnullaahi muy ndimbalul yàlla muy fas woo xam ne aw mol la ñu indi fas yi ba ci buntu jàkk ji Serigne tubaa nee na bañ ma téelee déggalu fas wi ba ma yéegee ca fas ka fas wala gouvernement bi yàlla bépp war ànd ak man rafiqi kitaabullaahi wal Mustafa nabi wa ashaabuhu fil barihiin aduwu keroog Serigne Touba ngi naan inni lam arju siddiqan wala axaf adwan ragaluma sama noonu yi bëgg a yaakaaruma sama sopp yi ma wër zimaam yi bi ay dil jundi daaru maay la daa zawil jahli wa tadlili awnani a alam ila nasrina qad saarahu maqyulihim wa xaafal ida minhum wa maadu ila salam gis naa bayit woo xam ne ci la sëñ tubaa ñaane ne yow yàlla nëbbal tubaab yi sama baatin buñ ma gaaw a xam nañ ma jàppi benn waaye rek lu leen neex teg ma ndax ma mën a am li ma bëgg ndax buñ ma xamee ni Ibra Fall la ñuy def gis naa fi ko sëñ tubaa bind dafa wax ni wa bihi zahzahil ahadiya an nii wal ka sun lii an hum dawaa man bu tóodi sëñ Tuubaa wax loolu nëbb leen sama bàttin bu ñu ma xam kookoy góor koo koy jàmbaar taalibe bépp taxaw ci ginnaaw am sàppe ñoom ñëpp avec un mieux désespoir seen yaakaar ya yolom lool ndax xamuñu lii fu muy mujj xamuñu fu war nañ di mujjee kii bëtam booba kurul yàlla boromam ak rasulullah ñu muy liggéeyal ak moom ahmadul xadim xamoo lii bëgg a xew ndaxte tukki boobu moo ko mas a tukki ñu dee di ko màggal ku tubaab yi ma sa jàpp sa bàmmeel sor na sa bopp say bokk ku tubaab yi ma sa exilé fële lépp doxee tàbbi géej moo tax toujours mooy wax ni exil égale exécution pure et simple tubaab yi mosuñoo jàpp ku dee lu si waaye sëñ bi dafa wax ni la in xarra nii man xarrahu zannu xaasidan fa maa xarra nii man jaa ani bi takarrumi fa man yulxini fi lbahri lil jahdi zaqilan faqad jaa ani fi lbahri juudul mukarrami fa man sadda an fa fal mawaahibu aqbarat mooy lii min al waahidil muxlil xafisil muqaddimi lépp loo xam ni nar naa xew boobu adduna tukki sëñ Tuubaa wax na ko moom kay yàlla noonu yàlla may nu fekk ci lu bari waaye fekk lépp àjjana rek lañ ko def kooku mooy sëriñ bi ci bisub gaaw boobu mu war bi mu yéegee ca kaw fasam wa murit ya wër ko dafa laaj ni ana lii may bëgg def lu ngeen ci xam fii ma jëm lu ngeen ci xam lii may bëgg a def lu ngeen ci xam ñoom ñëpp ñu ni cel ndax ñoom kenn du ci waxte laaju la mu ne ana Ahmadou su ne Ahmadou tekk rek nag te tegu ci wenn tur sëñ Mandoumbe lay wax su ne seex te tegu ci wenn sant wala wenn tur sëñ gaawaan lay wax mu ne ana Ahmadou sëñ Mandoumbe dafa daal di dama am xar rek wëndeeloo moom daal di xaacu ca kaw ko mbàkke na ba dara dekk nan dee ba jeex mun ko Ahmadou wéeral xel lii dëgg la ci waaye lii néew na doole lool ci ñu muy bëgg a dajeel taxawal te déglu ma daal ni ana seex sëñ di yuuxu mu ne ko loo xam mu ne ko mbàkke woon ba ma la xamee ba tey xaw ma dara ma ne tubaab yi boo leen joxoñoon ñu tàkk nga jër leen nit doomu naaw it du tee keroog laa lay gën a gëm bu la joxoñoon nga tàkk di lakk ba doon doom ñu jër la nga naaw it keroog laa lay gën a gëm ku mu laaj rek ñu ëpp ci ñu tontu seen yi seen xel dafa gën a lëng ci jihaat ci jihaat ñoom ñëpp seen xalaat di gën a lëng rekk ci mbàkk xam nga kii nan dee ba jeex moom jihaat rek la kii sëñ Tuubaa ni ana masam ana ana Abdourahman sëñ daam ni ko mbàkk mu ne ko Abdourahmane lii ma bëgg a def loo ci sa xalaat mu ne ko Mbàkke laajal sa borom li ngay def mu wax la ko nga def ko te noonu nga wax noonu ni def nga def yow laajal sa borom rek li ngay def nga def ko te noonu nga wax noonu nu nuy def ñu ko ak sa Abdourahmane irja ma walaasimu taatallaahi inni awdatukum man maa awdatuhu shay'an wa xasalat yi maay suur yi toog leen te muñ ma liggéey ba liggéey ñëpp danañ añ moo tax sëñ Tuubaa wax ni yubashiruhu zanni lazi qaadani ila duaai fa bashir man ataalu li naxbaa baa ci baatu luxa mooy ku yëkkat booba ñoo ñëpp a ngi jooy nangoo naa ci làmmiñ ko ma doy muy sëñ Modou Kane Baye Mourtala war nga koo xam. Mhm, bu baax. ñooñu ñooy suñu formateur ak ñoom sa sa waajur bu baax euh, xam naa yaa ngi mal jeewal te jeewal dafa am importance ci tukkib sëriñ bi. ndax jeewal li ñu tuddee badar dafa répété wu waat ndax ku nekk xam na ne ni nga ko waxee iblis dafa ràbbu ay njabar sànni ko ci ay xol yetti xol dafa ram ràbbu genn njabar sànni ko ci xolub sëriñ si ñu di ko fiire ndax hàddiyee ji ñu koy jox ak di xawi ko ca garab ya di daanu ci suuf lu mu wax kenn du ci teg baat te booba sëriñ amul lu ba ak dibéer ak ngay gàmmuñu ñu sarax la ginaar sëriñ bi di laaj addiye ñu di ko ko jox di ko boole ki jooy mu ràbbaat geneen jabar sànni ko ci xoli sàmm si ñu ne moom kat day occupé suuf si te bu occupé suuf si nun dootul am fun sàmm mu ràbbaat geneen jabar nag sànni ko ci xolu ceddo yi ñu ne moom kat kon da koy wut nguur ci tuuru diine doon ko ci menn maam nguur rek la bëgg parce que toog ci kaw ñëpp toog ci suuf nga naan yàlla nee na di la jël di la jox wax dëgg yàlla loolu dafa neex kon moom nguur lay wut ci turu diine waadxalal illahu fi qulubi man tasababu fi naqlihi zaaka zaman ixraajuhu ila al bilaadi naa wa fi fiha fawxa samin saariya kon mu nga dëgmal jeewal gi nga xam ne dafa répété wu di badar ndax badar dañoo wax ne iblis dafa soppaliku suraaxatu bnu malik ñëw daan leen di wax ne wa qaala laa xaaliba lakum al yawma wa inni jaarun lakum bu leen am lu ñun di tiit ndax maa ngi ànd ak yéen waaye ba mu gisee jibril rek mu war a ci ko wax ay suum daf ne a waqaala inni bariun minkum inni ara maa laa tarawna inni aqaafullah wallahu sadidul iqaab man kat maa ngi gis loo xam ne gisu leen ko kon man bàyyi naa daw naa moo tax sëñ Moussa Ka ne fajarub gaaw bala ndaam rañaane baari dajeg tubaab ba daal di yendu jeewal fanaan fa bóot ya rëy na duñ ko siiwal keroog la jëkk gis ahlu badrin ba mu xëyee subag dibéer la ñu ko dar nee na keroog ngelaw mu la mu doon ràmbal jibril la yor gogom ba moom la àndal ka annahu ka annahu wa huwa far ca burdu moo doon dexinu far fa loolu lim ci jublu mooy ka annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askari ayna talqahu wa fi hasami yonent bi sallallahu alayhi mu nekk kenn ci digg xare ak nekk ci mbooloo ñoo yem kepp kon moom njàmbaar googu nga xam ne iblis feeñuwaat na keroog ah, Serigne Touba ngir badar gu répété wu kon yaa ngi jëm si jeewal foofu ngay teg sa loxo ma ñëw ci Serigne Abdoulahi Diop Bisri sëriñ bi xam nga dafa dem ñetti voyage ñibbisi te sëriñ bu sala nag kenn mës dem dellu si mu dem ci géej gi ñibbisi dem gànnaar bi mu dem gànnaar nag dafa am lu taxoon ñi di ko fa yóbbu mooy buñ ko fa yóbboo nit ku ñuul am na complexe sub naar bu fa demee ña fa ne ci ay boromi xam-xam gànnaar goo xam ne Abdullahi ibn Alawi yu ma nga fa gànnaar goo xam ne Mualla ma nga fa gànnaar goo xam ne Muhammad ibnu Asan ma nga fa gànnaar goo xam ne maanaam banni day maan nga fa gànnaar goo xam ne sërif faw yëpp nga fa borom xam-xam yëpp nga fa yor der bu weex bu fa sëñ tubaa demee sori na nit ñi duñ fa man a dem ñaareel ba nag mooy bu fa woote ay taali bi du ko am ndax naar yaa ko ëpp xam-xam kon sëñ Ablaye Diop ga Bichri sëriñ tubaa nan la toje gànnaar bannaar yi jébbul ci moom di ko raamal waa kay jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf alaaji Busra ci waxtaan wu am solo wi ak alaaji Gànn yàlla yàlla sàmm cheikhul xadim radiallahu anhu xam nga bi mu jógee ci géej gi ndax damay bàyyi sama mbokk yi ginnaaw bu ñu wéyal mm-hmm. man comme ci gànnaar nga ma laaj bi mu defee ci géej gi juróom-ñaari at yu topp ñibbi si 11 novembre 1902 ci la ñëw bi mu ñëwee dem na ndar ndar diir bu gàtt la fa def fukki fan ak juróom mu yónni maam Cheikh Issa jenn borom Dieng ak Lagan mu dem ko wool boroom daarul moxti jàmbaaram ji ñu gisee defe naa tey moom la ñuy màggal ci nisfu sanbaan ca daarul moxti ba mu fa jógee dafa jabal si Louga fa la ume kooram googu ci fin 1902 bi mu fa umee koor diir bu gàtt mu jàll siise ñeenti fan ya ca bari jàmm siise juróomi fan ya la ñëw kër sañ siréloo sànnoo si fa nekk di leen naafal ba fa la korite sànnoo seet lu bari xew fa fala jàmbaar ji nga tudd léegi sëñ Ibrahima Diop almasar yi jébbaloo fa ko sëriñ Tuubaa jommale woon ci bor bi mu amoon muy boru juróomi téeméer te mu sadd ay woy nëbb woy ya njabootu boppam xamuñu ko jox ko yàlla sunu boroom fa àlla ya adyunun axsamtuha bayna alkiraami la ala an yaqduha bind ca euh, bayit yu rafet muy bor yi ko daloon mu ni séddale naa ko ñeenti saaba yi Aboubacar Omar Ousmane Ali ak Seydina Mohamed mii seen sang di sunu sang ñun ñëpp jël lettre boobu suul ko jël li ñuy wax njarwañ geenu fas li ciy sew mel ni kawaru jigéen ñi li ñuy léttoo moom la ko lëmase daal di suul lettre booba ca Kajoor booba Seexul Xadiim a ngi ci géej gi jugeegul ci tukki bi 1902 googu mu ñëw bi mu tollee Sànnuusi ci la yàlla dogal sëñ Mor Absa Diop mii wéy juru sëñ Ibrahima Diop almasar yi yebal njaboot gi nu ziyaare ci Cheikhul Khadim ndax booba Sànnuusi ñépp a ko doon ziyaar si di ko ndokkeel fa la sëñ Ibrahima Diop almasar yi ñëwee ba mu ñëwee ba nuyoo Cheikhul Khadim bay génn sëriñ bi woolu ko ba mu del si sëriñ bi wax ko ni sa bor ba yëg naa ko ni ko laata ngay toog jox ma mbuus moo mu def koppar amoon na juróom benn téeméer sëñ bi berloo ko téeméer yi juróomi téeméer ya mu xamal ko ni Abu Bakar nee na téeméer a ma ngi ca bor ba Omar nee na téeméer a ma ngi ca bor ba Ousmane nee na téeméer a ngi ca bor ba Aliou nee na téeméer a ngi nii ca bor ba door ni ko maa wuutu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama téeméer a ngi ca bor ba keroog la daanu jëllu wax ni amatul cofeel ci Bagdad amatul cofeel ci Fas fu mu fekk Sëriñ Tuubaa ci Jolof jaay na fa ay nokkeem maa lii li baghdada sawkun laa wala faasi lakin bi ruya jolof xat biatu an faasi zaaka alxadiimu xadiimun laa yumaasiluhu man la aw jàll min jinnin wa min naasi zaaka alxadiimu lazi xat faada daa'iruhu wa baa man lam yazur bil buusi wal baasi dem bay tëj mu ne wa saara yax bitu nii man kaana maskanahu fii batni baghdada aw fi misra aw faasi ponkal moomu nga xam ne bind na lu ne ci sëñ Tuubaa foofee la jébbaloo woon jox boppam sëriñ Tuubaa mu jóge sànnoosi jàll na ci bërëb yu bari bokk na ci bërëb yi mu jàll ñaxal bokk na ci bërëb yi mu jàll kër mëndumbe xari bokk na ci bërëb yi mu jàll dem na fu ñuy wax Mbàkke Kajoor ziyaare baayam sëñ Ibrahima mbakke mi nga xam ni moom Maamoor Anta Sale bokk lépp bokk na ci bërëb yi mu jàll dem na Daaru Salaam hmm. waaye Daaru Salaam mu fa ñëw ci 21 janvier 1903 maam Cheikh Anta boroom dërëm ak ngërëm rakkam ju dëggal ja ganale ko ngan goo xam ni juróom-ñetti fan la bis bu jot juróom-ña fukki nag ak juróom fukki gëléem ak juróom fukki xar ak juróom fukki bëy ak juróom ba juróom-ñetti fan yi mat mu nar a tër nit rendi ko ngir santale sëriñ Touba ci ñibbisi gi nii bu ko nit ñépp yëgee njanaaw yi sax war na yëg ni sëñ Touba ñëw damay teral tan yi ku ñuy wax askamara moo ni woon day tëdd ñu rey ko jox ko tan yi askamara moomu nag taalibi sëñ Cheikh Absa la woon bu mu joxoon Mamor Jaara borom saam yàlla dogal sëñ bi goreel ko ba mu fa jógee la door a jàll ci daarul mannaan daarul mannaan nag mu indiwaat coow li ko yóbbu gànnaar ndax xam ngeen ni bi sëriñ bi ñëwee daarul mannaan diir bu gàtt dafa am lakk gu ko dal bi lakk gi amee mu dem daaru alimil xabir ndaam toog fa ab diir yebal taalibe ñu defaraat kër gi bërëb boobu nga xam ne borom daaroo fa newoon bi ñu defaraatee kër gi mag ñi defar ko ba noppi sëriñ bi sant maam Cheikh Ibrahima Fall ak maam Cheikh Anta borom daaru salaam ñu jëndi ay meubles yu ñu installé ci kër gi ñu demoon ndar di ko jëndi bi ñu jëndee lal yooyu ak toogu yooyu def ko ci ay saak sëf ko ci kaw gëléem yi ñëw ba tollu dëkk ba ñuy wax googo ci wetu ndar ci la ñu dajeeg benn pël bu ñuy wax Demba Ngari moom moo ñëw fekk na agent secret la mu laal ko ci loxoom daal di signalé ko mbaaxaan ni seexul xaddim daa mel ni génne gi ñu ko génnewoon yóbbu ko ci géej gi da koo metti ba tey mu ngi waajal jihaat pour jëm si ci seen kaw loolu yàq na xelu tubaab yi bi nga xamee ni mbaaxaan bind na rapport mbaaxaan tam tuuma yooyu bi mu amee mu tuumaal Serigne Touba ci nasaraan bi ni leen day préparé jihaat moo tax Serigne Touba ngeen dégg ca yaa jumlatan xat sallasoo bi dalalihim man lam yakun lahu waladun aw waalidu axrajtumuni naafiqiina bi annani abdul ilah wa innani la mujaahidu wa zannantumu anna al madafia indana wal kullu minkum zu qillan wa yuxaasibu fa maqaalukum inni ujaahidu saadiqun inni li wajhi llahi jalla ujaahidu inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqaa abdan qadiman wal muhayminu shaahidu génnewaat nañ ma ñuy wax ni damay def jihaad damay def guerre sainte dama denc ay ngànnaay ci sama kër te ñoom ñi koy wax ñëpp ki moo leen jàpp ak bañ lu baax ak nangu ni jaamu bi yàlla laa bu koy jaamu tey liggéeyal yenantu bi alayhi salaatu wasalaam loolu nag bi mu amee ñu tuumaal Serigne Touba ci daa yor ay ngànnaay ci la tubaab bi nag woote booba chef de canton yi ñoo fi ëpp galon ñépp ay dikk wuy si woote tubaab bi ñu daal di wax nag ni Serigne Touba lii ñu ko jiiñ nu mu demee bi ñuy laaj nag mbaaxaan wax ni noonu la demee dafa yor ay ngànnaay te dinaa dem visiter ji ko ñeneen ñi ci dugg ñépp ruuxale ñu yàq xalaatu tubaab yi ca la nag ku ñuy wax buur siin ñëw seereel sëñ tuubaa seele bu rafet buur siin moo wax nasaraan bi ñu leen lii ñu tuumaal sëriñ Touba amul Cheikhul Khadim mi ma xam yàlla képp a ko ñor ak yenant bi ak alxuraanam man de ceddo laa waaye duma fekk ay caaxaan sëriñ Touba dencul ngànnaay waajalul guerre du tooñ nitu jàmm la ñu ne ko yow buur siin kii ngay défendre lu tax nga koy défendre mun damaa nangu dëgg rek moo tax ma wax leen dëgg googu ñu ne ko li nga wax suñ demee ba yëg ni denc na ay ngànnaay lépp la ñuy teg ci sa kaw ci daan folli la nga ñàkk say galon mu ne d'accord na ñu ne ko suñ demee ba gis ni li ñuy tuumaal sëñ tuubaa am na dootoo tekki dara ci nun mu ne nangu naa kële tamit nga xam ni moo tuumaal sëriñ tuubaa moom it di def ay yitte pour tubaab bi gëm li mu wax ca la buur siin nag nëbbutoo yónni ndawam mu dikk gis ci sëriñ Touba borom daarul ci la dajal ba mu ko waxee borom daaru mu ne kon nañ ànd dem ndaam nga wax sëriñ Touba lii buur siin wax ba ñu àggee ca ndaam sëriñ Touba déglu ko mu ni buur siin a ma yónni tuu tuuma giñ la tuumaal te mu défendre la léegi nag tubaab bi dañu ragal ceddo bi la tuumaal ceddo dafa am jikko ju doy waar mën nañoo jël ay ngànnaay gaaw ko sa kër ba pare gëmloo ni yaa ko fi def fekk defoo ko fi loolu lay ragal nag pour seetal honneur am comme défendre na la bëggul nu bàyyi fi ay ngànnaay ci loo yëgul taqal la sëriñ bi nag nangu wax ju rafet jooju ca la dajeeg buur siin wax ko ni moom sëñ Tuubaa lii nga may defal loo ci jublu mu ne ko dara mbàkke damaa bëgg loolu ñuy wax dawkat ab xaj na muy àndeek boroomam bu ëllëgee naa ko mel ci yow ci biir yow man xiyam ci àjjal sëriñ bi xam ne li sincère la ci moom mu ne ko sàllaaw doo torox fii doo torox fële doo folliku fii doo folliku fële dinaa la fal fii fal la fa ñu jëm ndax lu rafet lii nga ma waxal daal ni ko li nga wax nañ ci bàyyi ay xel taalibe yépp génn nag gaaw kër gi wër ko ngir bañ saay-saay yi dugal fa ngànnaay yi bi nu ñëwee itam gis nga visite bi ni mu demee xam ngeen ni gaal yi sëñ Tuubaa yi lañ doon bënn di jàll ci kaw xay na dadul teggin di ci jaara ndax kooka léegi mujj na tuub ba mujj na yaakaar maam Cheikh Ibrahima Fall tudd Abdul Xafoor waaye ci boobu jamono daal teg nañu fitna yu metti kër Seexul Xaddim sëriñ bi ne baltu tàkk na ñëpp dal ta toog ca la bindee xasidaam gi nga xam ni mooy rabbi maestro muy ñaan mu wane ni suñu borom garanti na ñu koy woolu tribunal nag ci atu 1903 googu muy dem di wuy ji ba tubaab bi décidé ni dañ koy yóbbu soit Madagascar wala ñu yóbbu ko Mauritanie ñu am deux choix te ñu koy yóbbu Madagascar ñu ne wala te ñu koy yóbbu Mauritanie fekk na booba Seex Sidiya Baaba radiyallahu anhu di sëriñu xaadar bu mag nekkoon gànnaar di kilifa ci xaadar ya bëgg sëñ Touba lool ñu waxtaan ak Cheikh Sidiya ci mbiru sëñ Touba mun leen man de yàlla rek a tax may wax ak yenant bi sama maam Cheikhul Khadim liñ ko tuumaal demewul noonu sëriñ Touba de du tooñ ñitu jàmm la du tooñ du yàq ñu ne ko ndax buñ la dénkoon sëñ Touba di ñu ko mën a téyel mu ne waaw lii moo waral ñu décidé bàyyi Madagascar dogal nag ni Serigne Touba dañ koy yóbbu gànnaar loolu mooy zahir bi waaye baatin bi Serigne Touba ko waxal boppam dani man zanna sayri xibba ama eh, ak masiri raxsa ama jay sasin sabata kawnahu jahoolan xumra bal huwa tatyibul ali lil umra lam yakku sayra ak siwa jaza man liya qaada baadu waadanan jaza cheikhul xadim dafa wax ni képp ku njorti ni sama tukki bii ma tu may tukkiwaat ci gànnaar ci atu 1903 mooy ak dafa tolloo ñu mën koo comparer ak tukki bi ma demoon ci géej gi muy atu 1895 ki njort ni benn lañ ñoom ñaar ay nattu la kooku dafa réer xamul li xew nee na kooku dof la te ku réer la mm-hmm. ñu ne ko lu tax mu ni sama tukki ci géej gi ay nattu la woon yu ma yenu ji ngir turu islaam sama tukki gànnaar nag ak pay la bu ma yàlla war a fay rémunéré ma jox ma sama salaire te gànnaar la ma ko digee ndax nitu yàlla ya nekkoon gànnaar liggéeyal fa seen boroom dañ faa bàyyi ay leer yoo xam ni leer gaa ngay ball ci seen kaw xabru ya te war naa dem jëli ji lépp ci payu yàlla sama borom foofu la ma dig kon zahir bi lañ tudd noonu leeral la historique bi mais baatin bi fay la gu sëriñ Touba di jële ji gànnaar bi mu ñëwee nag mu dem Sarsaara nu yóbbu ko Sarsaara bi muy demit xam nga Seex Sidiya Baaba mi ñu ko booleel moo ko war a si mu yónni ñaari ndawam jox leen ay gëléem sëriñ baa ngi duggee dagana mm-hmm. bi mu duggee dagana nag daal di dem gànnaar